Euh, toog def ci CRD di waxtaan ak euh, njaboot bu xam ni ñoo war a organiser gàmmu fii ci Thiès ñu tànnoon ci quelque ci euh, njaboot mooy waa kër Cheikh Khadim Lo famille Loyen waa kër sëñ Saliou Touré waa kër Cheikh Ibrahima Fall ak ñooñu daal ñoo fi nekkoon Khadim Lo Gadayal ñu ñoo fi dajewoon tey pour ñu waxtaan xool naka la ñuy mën a defaroo pour que bis bi yónent bi ñëw lépp mat lépp mat nag yàlla suñu borom moo ko matal mais lu xam ne vraiment lii da ci suñu suñu niveau la ñu waxtaan ci seet duñ ko mën a defaree ba organisation bi du am problème waxtaan nañ ci pare nag ñëpp présence tous les chefs de service régionaux kenn ku ne engagement say vraiment yi nga waxoon ci CDD bi waxaat nga ko fii ci ci CRD bi ne di ko respecté avant gàmmu loolu lañ ci amoon luñ ci luñ ci wax vraiment di gërëm aussi kilifa diine yoo xam ne ñoom déplacé ñu wuy si gouverneur aussi ak seen euh, toogaay bu rafet bi fi toogee vraiment gërëm leen sant leen xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk réew mi kilifa diine bu nekk fii kilifa aada nekk fii te gàmmu bi ñëpp ñoo ko bokk su baaxee suñu gàmmu la su bonee suñu gàmmu la te ñaanu yàlla guddi yonent moom même boo defoo dara yonent loolu defal ko moom guddee kon nag vraiment ñu sant yàlla ko sant leen gërëm leen xam ne ñoo ngi ñoo fi nekk ñooy ànd ñu liggéey pour gàmmu gi baax loolu vraiment moom la amoon luñ ci ci wax di gërëm di leen gërëm yéen journalistes yi yi fi nekkoon xam ne bu ñu àndee liggéey rek yëf fi dana dox te loolu ñu ñaan kilifa diine vraiment xool nañ ne ñu toogaayee en sens vraiment xam ne ñii ay régulateurs sociaux lañ ay éducateurs lañ te waroon nañ ko ci biir salle ne ñii liñ fi nekkee tey vraiment seen taxawaay bi rafet na te dinaa ko wax gouverneur na ko vraiment ñi ñi fi yebaloon yëpp seen kàddu rafet na seen taxawaay rafet na kon dama leen di sant di leen gërëm ci ñaan yàlla balaa bis bi ñëw lépp mat ci barke yonente bi ci barke suñu borom loolu laa am lu ñuy wax di leen gërëm vraiment yéen journaliste yi la soir aussi amaa nañ beneen pour kii mais am na loo xam ne liñ ko gisee mooy du dama leen dajalee pour xeeb leen déedéet mais boo gisee ñu daj leen parce que xat-xat yi ñoo bëri te gàmmu gi ñëw na te fukki famille yi nangam moo bis bu ne nga defal ko CRD mais boo leen boolee ñëpp ñu xam ne ci biir commune bi leen bokk ci biir département bi préfet yi toog su préfet yi toog kuréel bu ñu waxtaanee mën nañu jubóo loolu tax ñu def mais du xeeb leen ndax euh, daraja suñu borom moo koy joxe te yàlla jox na ku yàlla jox daraja pare ñun mënu ci dara mais nag mënuñu defal kenn ku ne defal la tey CRD tey CRD famille loo CRD sa déedéet leneen daj la ci biir ñu waxtaan ñu jubóo xool lañ koy organisé loolu tax ñu dajale mooy du xeebal bi. Euh, sëriñ Alpha Ndiaye Dabaye di doom ci sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye mu fi nekkoon ñetteelu xalif général Dabaye euh, di seet itam ci sëriñ Mor Ndiaye Dabaye mi nga xamante ne bii ah euh, bisi bii itam moom la amoon ñu ko koy taxawul ah ñëw fi itam ci ndigalu sëriñ Abibou Ndiaye Dabaye. mi nga xamante ni bii moom mooy xalif général Daabay ak ci turu sëriñ Abdoulahi di xalifa sëriñ Bassirou Ndiaye Daabay ak ci turu njabootu sëriñ Moon Ndiaye Daabay gépp ñu ànd ak suñu kilifa suñu sëriñ suñu woyjur di caatu sëriñ Moon Ndiaye Daabay muy sëriñ Omar Ndiaye Daabay nga xamante ni bii ragal naa ni miin ngeen ko ah sëriñ bi jëloon ko doxalee ko ci lu mel ni jël ak njobootam ak doo dongo yépp yëpp toftal ñooñu ci ginnaaw suñu Omar mii ñu ànd ak moom di taxawal bis bi ah kon suñu Omar moomu moo dellusiwaat fii ah di kilifa jataay bi ah, moom lañu àndal mu fegook doomam di sëriñ Cheikh Ndiaye Daabay Basirou mi nga xamante ni bii moo yore kàddu njabootu sëriñ Basirou daa Daabay gépp ah, moom la feggool nga xamante ni bii moom la sëriñ bi teg gàmmu gi mu yore wàllu organisation ànd ak rakam sëriñ Abdul Xaadir ak sëriñ Omar Kébé Ndiaye mi nga xamante ni bii moom ragal naa ne kenn du ko présenté ci taxawaayam ci kër sëriñ Moon Ndiaye daa bay ah, mu mel ni itam ah, ñëw nañu wuy si gouverneur ci CRD boo xamante ni bii woo nañ fi ñu wuy ko fii comme niñ fuy comme jamono yi yële weesu euh, Fodé Fall préfet woo nañu defal ñu CDD ñu def ko wax fa suñu bëgg-bëgg tënk fa tey ji gouverneur itam woo ñu fii a ah, ñu li kanam ñu mottali itam kàddu ya fa desoon ah kàddu yooyu itam du dara lu dul a ah, bëgg rek li nga xamante ni bii mooy jagal gàmmuk sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye di gàmmuk sëriñ Moon Ndiaye Dabaye ah ku ne xam ne ni gàmm gi dafay am loo xamante ni bii sëriñ bi dafa koy soxla te loolu muy soxla du ko mënal boppam ki ko koy mën a dimbali maanaam ki ko si mën a dimbali mooy état ndax ku ne xam ne ni bu dee loo xamante ni bii poos mooy tax mu mën a jag kon ragal naa ne kon fii duñ fi taxaw ndax ragal naa ne gàmm gi jaral na sëñ bi jaral njaboot gi gàmm gi egg leen foo xamante ni bii lépp loo xamante ni bii poos moo koy defar kon ragal naa ni ñoom duñ sol seen daal dem fenn pour di ko fa waaye nag dafay am loo xamante ni bii poste du ko defar état rek moo ko mën a defar ndax moo am doole jooju bis bi itam doon bis boo xamante ni bii taalibe yi danay jógee fu nekk ci àdduna bi ñëw daabaay kër sëñ Bassirou Ndiaye daabaay di gàmmu si kon taalibe yooyu itam am itam lu war si ñoom te ñun mën a mënaluñ leen ko ki leen ko mënal mooy état kon looloo waral ñu def CRD def CDD waajal gàmmu daabaay ngir loo xamante ni bii dana mën a jagal gàmmu bi. ah du dara lu dul wàllu sécurité ndax mbooloo moom fu muy daje war naa mën a am sécurité boo xamante ni bii ah ginnaaw yàlla dana leen aar ñaareel bi itam ñu soxla lu mel ni wàllu ONAS ndax ku ne xam ne nii fu nekk lay doomu aadama di jóge ñëw kër Cheikh Mon Ndiaye daa bay di gàmmu si te buñ dikkee itam kër yooyu dañ boroom kër yi dañ koy génn jox ko gan ñi gan ñi dañ fay am ay fan ku ne xam ne ni itam wàllu SDE ku ne xam na ni dañ koy soxla ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bii buñ ko fi limee ragal naa ni mën nañ fee yàgg waaw kon ak lu mel ni wàllu santé waaw lu wàllu lu mel ni wàllu santé itam yitte woon nañ ko fa waaw kon mu mel ni loolu itam am nañ ci yaakaar ndax ñin ko séqal ay gor lañu te ragal naa ni dégg nañu liñ leen wax ñun tamit déglu nañ leen waaye bëgg-bëgg ñoom am nañ ko te am nañ ci yaakaar ni lii ñu bëgg yàlla mën a dogal incha allah ci kanu yàlla yàlla mën koo motale. ñoo ngi si ñaanal tamit yàlla motali ko. bu mujj gi nag moom mooy sant gouverneur. ci taxawaayam bu rafet ci kër Serigne Mor Ndiaye Dabay di sant itam préfet de Fall ak su préfet si ah di sant itam autorités yi nga xamante ni bii dañoo nekk ci Thiès gépp di leen woo ñoom it ñoom ñëpp ci gàmmu gi di gàmmu sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye ñu bàyyi ko xel bu baax di leen koy yëgal ñoom it ñoom ñëpp ñu ñëw ñu àndandoo gàmmu gi dugg si si jàmm génn ci itam ci alhamdulilahi rabbil alamin C'est mon nom c'est Amar Kébé Ndiaye. Bon, nous rendons grâce à Dieu et j'espère bien que par rapport aux engagements qui ont été pris par l'ensemble des chefs de service régionaux qui étaient la les engagements ont été pris. et prions maintenant le bon Dieu que ces engagements soient. Parce qu'également, on peut dire une personne n'a qu'à sa volonté. Et on a senti l'engagement, on a senti la volonté. Et espérons bien que Euh, ces engagements-là seront réalisés parce que également les années précédentes, des engagements ont été pris et ça a été également. Donc espérons bien cette année également que ces engagements-là soient comme, comme années passées. exactement. Mhm. On a confiance par rapport à ces autorités-là parce que ce pas pour la première fois qu'on se réunisse. Et les années passées, on s'est réunis et ça a été donc raison pour laquelle également on a l'espoir que cette fois, c'est sur le plan sécuritaire. Et quand on parle de sécurité, c'est la sécurité réellement, c'est l'éclairage, c'est au niveau également euh, de un bon, bon, approvisionnement de l'eau et tout ça. Donc, quand on parle de sécurité, on dit que la sécurité dans sa globalité. C'est l'urgence, la sécurité dans sa globalité. Oui, oui également, parce que, comme on, le sait, euh, les pèlerins viennent de partout. Raison pour laquelle les voisins également désertent leur maison et le lèguent également aux pèlerins. Et les pèlerins passent des jours chez eux, et également, utilisent également leur, leur, leur toilette et tout. Maintenant, par rapport à ça, maintenant, on devait sentir l'appui euh, du marabout, que également par rapport maintenant avec la force de l'État, maintenant pour, sentir, pour au moins soulager les charges maintenant que, que, que le gars me fait supporter maintenant à, à ces pères de famille-là. Leur dire d'être des disciples de Serigne Mor Ndiaye Dabaye. Et comme on le sait, être disciple de Serigne Mor Dabaye a des conditions, que toutes ces conditions-là, pour être disciple de Serigne Mor Ndiaye Dabaye, venir dans la paix, dans la convivialité, également venir fêter le Maouloud dans la charia et dans la, dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rien d'autre, pas, de gaspiage nii de sérénité, mais tout simplement venir fêter le Mawlud dans la charia et dans la sunna du, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.